ayca cant ak ngërëm ñeel la leen ñuy topp ci Leewtoo TV waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo safoo seen émission Leewtoo ak ma daal di ñëw fi nga xam ne mooy écurie Dóor Dóoraat bu ñu nee Dóor Dóoraat nag kenn dootu ko présenté ci làmb ndax mën naa ne champion yu bari fii la ñu génnee ba tax na damaa togg kenn ci ñoom di ki nga xam ne mooy Ada Boy Bawal borom lu simple bi ma nuyu ko bu baax bàyyi ko nuyu internet yi Ada maa ngi lay béggee waaw maa ngi lay ziar Ndeye Mbacke di la bëggee ginnaaw ma sant yàlla maa gërëm sama ñaari waajur di gërëm mboor mboor yëpp di gërëm waa Cambérène ak waa Parcelles yëpp xam nga di gërëm waa Bawol di nuyu waa école Dóor Dóoraat tamit di leen ziar bu baax a baax di leen nuyuwaat di leen jaajëfal. ginnaaw bañ la nuyoo rek ñu toog ay diir gisatuñ la lu xew fan nga ne. waaw maa ngi fi de yaakaar naa dimanche bi passé rek wàcc na. lu simple nga ne fan nga ne yow. non man maa ngi si dëkk bi sax maa ngi dëkk bi de maa ngi entraîné de <laughs> maa si dëkk bi waaw. balaa ñu ñëw ci lu simple bi rek Oumou Laye sama cameraman dañoo gis chaque année bu ñu nee drapeau chef de l'état bu ñu tourné dañuy gis ku ci mel ni Aada Boy Bawal gi général Malick gis ay champion yu bari waaye bi passé gisuñu leen lan moo tax. waa amaana xëy na ren dañoo demul rek jékkuwuñ ko pour dem parce que doon nañ participer ay yeneen année yi ren demuñu dañ koy sant yàlla xam dañ fa demoon amoon fa ndog-ndog xam nga amaana kon suñuy demaat dañuy xoolaat quoi dem si lu leer mais duñ jóg rek tamit dafa demaat ndax am na ñu ñu bëgg tamit comprendre kon lu ñuy dugg daal dafa war a est-ce que dem drapeau de chef yenn préparatifs yu jar na ko parce que drapeau chef de l'État dafa métti parce que drapeau chef de l'État dafa métti trop trop parce que par catégorie ngay bëri sa catégorie bu ne da lay waajal bu ne 100 kilos 100 kilos yëpp am nañ sa tur. ça ne m'était pas aimé Araba la star le noonu la demee xam nga dan lay waajal dan lay préparé wu tey soo amul mënin boo préparé woo yow mën nga fa dem nekk ndaanaan sax sa ndaanaan du feeñ. loolu la quoi jàppante wala naan ko jàppal ma diw. bu baax jàppal ma zos jàppal ma tànk noonu la demee parce que par équipe la te dëkk bu ne rek dafa bëgg a gagné léegi dëkk yi gën a waaj gën ci sonn gën a génn xaalis am ñu leen jàppale xëy na mën nañ ci génn chaque année noonu lay demee mais dëkk bu si gën new néew doole moom soo moytuwul maman ah, mooy loolu ay paas ngay am quoi. ñu gis équipe bi nga xam ne mooy équipe bu Dakar daal koy remporter lan leen di wax. waa équipe bu Dakar moom ren dañ leen félicité xam nga di wax def nañu rafet daaw ñi demoon ñun la woon ren ñeneen ñoo dem comprendre nga yàlla def ni ñoom ñoo ko war a jël jël nañ ko ñu ngi leen ciy jaajëfal di leen ñaanal xam nga mu yokk bu baax a baax parce que Dakar tamit moom lañu am comprendre nga xëy na moo tax ñu doon ko teewal amaana même buñ ko jëlul yàlla dogal na ni teewal nañ ko ngir bëgg guñ ko bëgg ci dara ay conditions yu métti dem bëre yàlla def la muy def ñu dem ba demi-finale ñàkk ko ñu ñibbi ñibbisiwaat mais nag ñi ko jël ren tamit ay jàmbaar lañ wax dëgg fa yàlla leen ñaanal mu jig leen bu baax baax a baax tam gën a yokk di wax Père Moustapha moom ñu ngi koy wax nii xam nga ñu ngi koy encouragé bu baax ndax jàmbaar la gis nañu taxawoo équipe bi xam nga jàmbaar la daal parce que ñi fa nekkoon ren regroupement tuuti dañu doon déggante mais wax dëgg yàlla ne ma bi neex na xam nga dund nañ fa daal. ci dernière question bi may posé moom ci drapeau bi boo nekkoon instant bi à la place du CNG wala ci bopp ñi nga xam bi ko jiite lan nga leen wax ñu yokk ko wala ñu wàññi ko. waaw drapeau chef de l'État lu neex la parce que drapeau chef de l'État tey bëre sans jàpp ngem bi mbër moo ko mën a bëre ku mënul bëre mënu ko bëre parce que bëre sans jàpp ngeen trois appuis jël la boo jàppee ngeen am avertissement loolu xam nga dafa metti loolu ñu ko mën a bëree bëriwul ah xëy na ñun moom gëm naa bu ñu waxee sax taxul ñu changé ko mais ba tey mën nañ ko bëre noonu parce que bëre du jàpp ngeen bu kase xam nga bu ñuy wax daal mooy nañu yokkal mbëri rek lañ leen di jox waaw financier bi nañu yokkal mbëri jox leen préparation bu baax te bu mbëri dematee tamit xam nga ba ñëw ñu leen jox luy sedd seen xool tamit pour ëllëg ndax ëllëg am parce que yenn saa yi gis mbër bu dem ren déwén ñëw mu muy du dem parce que xam nga xam ne lu fa xam ne lu fa séentoon amu ko te dafa metti dañ lay téye ay jour ci benn ruq demaat téewaat la trois jours wala quatre yoo xamante ne yow yaa ko war a bëri kon ki bëre ba indi ndam li pour man moo ci war a ëppale quoi encadrement yi sax moo leen ñoo leen war a ëppale mais nag dangay dañuy séddoo encadrement yeeg coach yeeg ñëpp ay séddoo. waaw mbër bi moom dina am quoi mais li muy ëppalee ñee bu dee dina leen ëppale est ce que sax du nekkul ñoom ñooy yam waaw. te mbër bi mooy gën a sonn yow la ñuy liggéey yaay bëre doy na waar de. yow la ñuy <laughs> yow la ñuy liggéey yaay yaay dugg si géew bi lu ne xew na si géew bi ah dafa doy waar de mais yàlla baax na. dañuy ñëw ci géew Ibamar rek ma dem Ibamar fekk la fa nga bëre ba li nga xam te ne mën naa ne mooy quart de finale wala demi finale nga ñaax ko ci ay détails yu ndaw lan moo tax mooy bi nga xam te ne mooy les stages de la ren ñoo tegoon xaalis bu 5 millions yooyu lan la woon. waaw làmb ji waaj naa ko trop barki yàlla ku gis keroog ni ma ñëw Iba maan nga xam ne damaa pare làmb ji bu baax a baax a baax mais amaan damaa dem ba si biir bëre juum juum bi mooy damaa yàkkamti rek xam nga jàpp naa ne daa war a ñëw rek daanu xam nga te incha allah bu ñu tamit noonu lay demee maa juum keroog rek ndax li ma def moom juum la quoi. ñu def tirage rek foog na yow palais bu am suukar la nga ne sarax rek foog ne da nga koy palti palti dem jàll la moo tax mbëri am idée boobu seen bopp. non damay entraîné nag Ndeye Mbacke barke sëñ Fall damay entraîné damay entraîné de boo ma gisee nii rek may xeeb mais damay entraîné ponkal ak ponkal laa gën a bëgg nit ku ndaw ponkal nit ku ndaw damay sonal man bala maa mën a bëre yow dëgg nga rëy foofu laa lay bëgg di la vidé la wan nit ñi di weer. waaw mbëri ngeen bëgg weeraate. non loolu ku mën a bëre moo koy def ak ku wóolu boppam borom xol bu bon munu loolu noonu la demee de. nga li nga am yëpp yow nga jël jële defet ba nga ñibbee ban réaction nga am mais sa propre bopp sa bopp yow waaw mais man xam naa ne maa juum parce que nit ñi woo nañ ma ñu bëree baree bëri woo nañ ma ne ma mbër laa mujj bu dul dara sax yow da nga jël wala sax nga finaalu mais tey ki daan ni ni la daan waru loxo daan ñu bëri wax nañ ko waa ma comprendre tamit xam ne man maa def erreur xam nga su ma defee erreur damay nangu rek mbër laa damay juum damaa juum ku juumul doo daanu incha allah bu ëllëgee dinaa ko defaraat xool li may def parce que kenn gënuma bëgg ay millions ñam naa million million dafa neex. voilà <laughs> <laughs> yow boo koy wax sa xol bi sedd barke sëriñ Tuubaa billaahi ah fu mu nekk nii nag laamu jooju jàll na beneen di ñëw yeneen di ñëw naka ngay waajale yeneen ñiy dem non damay waajaat rek entraîné waat xam ga damay waajaat entrene waat demaat doxaat li ma daan dox kontaagaat bërëje waat du ma bàyyi noonu la de su ma daanoo tey suba damay demaat su ma jëlee su damay demaat mënu ma ko bàyyi mooy sama liggéey xas naa ci ba toog ba pare bàyyi naa lépp ngir moom. ñëpp billaahi mënatu ma ko fowe moo duma taxawaal man bëre rek laa man instant bi mënuma leen lu bëre. loolu lutte simple la ñuy dugg biir arène nationale fekk fa lutte avec frappe ñu mën la ci xaar ci kanam yu néew wala promoteur yaa ngi wax ak yow. waaw mais man de promoteur yaa ngi wax ak man yàgg nañoo wax ak man sax laay wax mais yaakaar naa ne làmb ji léegi moom li fi xew léegi ñun ñëpp gis nañ ko gëm naa ne daal nekk fi mbër taxul nga bëre quoi. ma tax nga bëre. noonu xëy na nga yor benn ay wax ay wax nit yi la gis ngay wax di la neex ñu jox la combat suba mais champion yi toog mënuñoo bare loolu dafa metti est-ce que jotul tamit comme wax mu wax mu wax mooy joxe est-ce que jotul tamit mbëri di yaa ngi bëree nga ni yaa ngi wax tamit di xumbal di ruube. moom man de wax dëgg yàlla à part war a wax moom du ma ci waxaat leneen. waaw ngay ruube naan suppu kànja am na meew ak yooyu dof a. am nitam la man damay entraîné lu wóor mën a bëre kon man li ma war mooy def fula ak fayda ñëw bëre daan luy topp sama gannaaw barke alxuraani karim dafa bëri nday mbaage man su may bëre ji damay jàpp ni sax man lii mënul nekk loolu yàlla moo ko def si man sama grand combat mujj damaa tëj Iba Mar man ak Zal Bambay léegi yow ba tey mënuma bëre waat dañu seet ay yoo xamante yow yow da ngay bëgg a sax bëre ak ñoom mais dañuy daw dañuy tànn lu nooy billaahi wallaahi damay toog ñu woo mbër barke alxuraani karim ñuy laaj mbër yoo xamante ni <laughs> non. loolu lan moo ko war a aada. ñuy am doole wala gàllaaj la wala. metti ci bëre ndey maake bilaay damaa métti si bëre. bu mu toll nii boo doon tànn adversaire neen la aada tànn adversaire kan ngay tànn fu mu ne kan nga ñeme. laa a papa wuy ma bul dugg ci émission bàyyi bañ pare yow bu fi ni benn problème waxal. man kan laa war a tànn ci man ñi ma laaj li ma laaj ci adversaire damaa laaj laaj laaj ba damay laaj mbër sax taseeg moom mu may nuyu. loolu jàmm sant la wuy ma fii. bët yenn wul waaye xam na li bopp attan kan la. Ndeye Mbacke. bilaay wallaahi li ma laaj ci làmb dafa bari ay adversaire yoo xam ne sëgu du damay bëgg a bëre ak dañ may daw di daw di daw di daw di daw man kan laay laaj nañ man ku ma làmb booleel bëgg naa bëre mais dama laaj ay wax ay tur wax ay tur bu yàggee day mel laneen la quoi te man ñooñu rawuñu ma dàquñu ma li ma def defuñu ko ñaata yoon laa dem drapeau chef de la ñaata yoon laa jël fi ay tournoi di bëre fii di daan samay mag ay mbëru équipe nationale ay champion d'Afrique dañ leen mos a daan man ma leen di daan man mënu ma bëree kon loolu lan la. ceebu gën bo bu am kaane bi la lutte avec frappe lañ wax lan moo tax. mais li ëpp baraag bi xanaa xamuma man pour man moo gën a yomb man simple benn combat rek nga waajal kenn nit ngay bëreel de nga xam li ngay war a dugg ak li ngay war di génn di tëdd di nelaw di yeewu non <laughs> non damaa xam ne benn nit rek dafa méttiwul mais nga dem tournoi yenn saa mu doon 64 nit ngay rayante ba taxaw final mais loolu loolu naka lay demee yow xoolal loolu ñaata nit ngay daan bala ngaa yegg. combat nag yow da ngay dem wuti sëriñ foo xam di nga fa dem. fu mu xam dina fa dem loolu mën na yomb sax génne sarax yeeg affaire xam nga lamb yi yenn saa day gaaw quoi lamb dóor lamb dóor sa raar lay yàgg de. lamb dóor de gaaw duñ toog ak nga xam ne mooy aada boor ba jukk te duñ waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité bu mujjee am ci lamb seen collègue wala seen mag seen xarit garga da doon bëree waaye combat bu mujjul ancu te nekk mu nekk combat bu yàgg yàgg yow ban loo ñu ci loo ñu ci a wax. waaw Bas dañ koy wax ko lamb ji met na si moom yàgg na xam nga yàgg na jàpp nañ ko jàppaat ko mu yàqu amaana xëy na du lu gën quoi man noonu laa ko mën a jàpp instant bi su ma doon moomoon nag damay dem seeti leneen bàyyi ko mu seeti leneen xam nga parce que am na fu muy yegg rek pour man am ma jaratu que tey lii suba lee bu yow demal nga seeti leneen quoi waaye mais nag alhamdulilah comme que dem na matale contrat am xam def na lu mu war a def ah làmb ji wàcc na ko noonu la rek. ah day xaar leneen parce que ay combat ci ko tëkku te làmb ju neex la. Zarko tëkkuwu ko de moo tëkku moom moo dem moom moo la bëgg waxal. avant loolu yow xanaa nekkoon stade yow Zarko. damaa ne moom moo ne Zarko la bëgg moom ci moom la ñuy wax bàyyi Zarko dama ne moom moo ne Zarko la bëgg. ah man de kon lu ma gis du loolu. Zarko mi ñëw nañ ma jox 500000 mu bëreeg moom léegi. 500000 <laughs> fanaan. ci biir géew gi avant avant. bàyyi 500000 waaw waxal. ah mu bëreeg moom rek daan ko amul leneen lan la koy def leneen loolu daan moom moo ko mën di lan la lan lan dafa am leneen <laughs> yéen xamoo leen gargaare de. lan mooy lan dafa mën a bëre. barke alxuraani karim garga dafa mën a bëre. du dara de dafa mën a bëre pare dafa baax garga comme du mbër xol bi dafa rafet barke al yi gars yi xam ni coow yi bi ngay dégg mosoo tee dégg garga de wala boog man mosuma koo dégg ci coowu mbëri bi parcelle wala keneen ak keneen garga de dafa baax dafa cool billaahi wallaahi man ma doon combat mu am ndam laa koy ñaanal combat bi chaque jour ñoo doon contact chaque jour ñoo doon contact ba combat bi nii nu mu demee nii maa ko tamit billaahi wallaahi mais xay na ni la ko yàlla bëggee woon xam nga jeex na si jàmm alhamdulilah amaana sax anam bi mu jeexe mën na nekk leneen ak leneen mais xëy na nii la ko yàlla tudde moo tax kee ñëwul bëre si ah noonu la daal ñu koy encouragé rek ñu xaar beneen combat yàlla may ko si a waxtaan bi neex na waaye li duuf ci nag bi yëpp xajul ci biir cin bi ba tax na damay tàggatoo ki nga xam ne mooy aada boobu boobu lan ngay tàggatoo bee aa waaw mais di gërëmaar di sant di wax gars yi nañ ma jël ñu bëre. dama war a bëre de nekkuma ci làmb ji pour toog nii ba nar a màgget damay bëre de barke alxuraan damaa mën a bëre di sant mboor mboor yëpp nag di sant waa Cambérène xam nga di nuyu sama gaay yi fii yëpp ñu fi nekk ñoom Badafal ni ko réel Déthié ak yeneen gaay yëpp maa ngi leen siyaar di siyaar waa Dóor Dóoraat di ñaanal yàlla giro yàlla na ko yàlla may ndam incha allahu rabbi dimanche xam nga sama doom la dafa war a bëre cat yàlla na ko yàlla may ndam béba alima am combat yàlla na ko yàlla may ndam talfa xam dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam jur kii ñang baalo combat bi mu ñëw moom tamit yàlla na ko yàlla may ndam ñi ngi ñaanal képp parcelle ku fi am combat yàlla may la ndam ndam lu sedd guy di sant ñëpp di sant Moussa Ñuule Baylaat mu ndaw xam nga Njaxat Bey Assane Bey Matar Bey xam nga Matar Diop Bada maa ngi ziar ñëpp di ziar sama yaay yadda bu baax sama yaay yadda xam nga ko sama mère bi <laughs> waaw maa ngi koy ñaanal bu baax mu dund lu bëree bëri billaahi parce que sama yaay la dafa may lépp yaay loo dund doyul maa ngi sant Omar bu baax di ko bëggee di ziar Tafa Diop bu baax aada Jokkel fàttewuma la sama grand bi Kanté borom Italie maa ngi lay bëggee bu baax di kontaan Ndeye Mbacke loo dund doyul. <laughs> Aïcha di ko bëggee bu baax a baax moom aada booy bool waaye di bëggee ñëpp ñu ma fekk fii ci écurie Dóor Dóoraat noonu laay def jox leen di daje ëllëg ci beneen waxtaan lamb ak beneen champion jaajëf.